salaamaaleykum waa Sénégal maa taxaw ku wax maam Balla Mao ah maam kon dootu ko présenté fii si Sénégal voilà euh, l'ami intime de Sadio Mané maam Balla ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ni mu di nuyu ñi may suivre à travers Sénégal euh, di kon daan ci daje bi. daje bi waaw daje bi waaw. Euh, ah voilà mais bon comme que yaa ngi sol mooy Sénégal ñu commencé si Sénégal rek. waaw Sénégal li ñuy def nii rek mooy xam ñu ngi ci waajal coupe du monde bi. on est en prélude de, euh, de, la Coupe du Monde. Comme on est des fans inconditionnels de la de l'équipe nationale du Sénégal, donc dañuy waaj rek comme ni ñu defoon Cameroun ñu yokk cere dolli ñeex loolu rek moo fi am. <coughs> soo xoolee Mamba la bokkoo si staffu kii bi euh, FIFA bi. staffu la. Euh, waa FIFA boolewuñu la seen kii bokk seen influenceurs yi. influenceurs lan. influenceurs yi war a dem Qatar. man la je fais des one man show. di fee di théâtre donc waxuma leneen. Ah, mais soo bi ni influenceur bi. bàyyi ma kii gi nga nim bu ma dugal ci ay gaamu influenceur ak kii man damay wër dépense damay xëy suba ba ngoon jot. Ah. di wut dépense. yaa ngi dégg naa gis nga maa ngi kii sax orange laa sol donc bàyyi ma def nii. ah, ah waaw <laughs> euh, comme man fan la euh, fan la fan de l' équipe nationale du Sénégal la waajal naa maag sama groupe. Ultra 221 xam nga ko <clears throat> groupe la boo xamante ne ñu ngi ci Facebook xam nañ ñu on group un groupe Facebook on est prêt avec euh, gars yi ñoom Cyril waa Facebook waa ñoom Ali communauté bu nekk France man tamit comme noonu waajal na euh, ñoom sax dañ ma doon dimbali euh, di ma di ma dexal avance maanaam bu ñuy joxee maanaam logement ñoom dañ ma doon dañ ma doon joxel après su ma amee fay leen donc ci noonu laa def ba mën naa wax Qatar bi taxaw donc euh, incha allah damay dem Qatar ànd ak euh, waa Ultra 221. mais mais bon mais bon Mambal soo xoolee yow si yow di si si kii bi délégation euh, Sénégal boo aussi. délégation Sénégal. mooy fédération Sénégal de football bi seen délégation bi bokkoo aussi. non non délégation fédération day yóbbu 300 personnes. Hmm. et pour man c'est déjà bien. pour man sax dañoo waroon yóbbu plus que 300 personnes parce que boo xoolee États-Unis ñoom mille fans la ñu yóbbu 35000 supporters. donc la fédération a décidé euh, d'amener 300 personnes euh, am nañu ci bokk ay sénégalais yu bokk euh, je ne suis pas plus méritant que waa Lebu gi ñu ngi ci Casa Sport ñu ngi ci douzième Gaïndé ñu ngi ci bon man peut-être yàlla tudd ko yàlla def na tamit am naa capacité dem damay dem te bu ma demee je représente le Sénégal fu douzième Gaïndé nekk danaa fa ne fu Lebu gi nekk naa fa ne fu Allez Casa naa nekk naa fa ne fu Ultra nekk naa fa ne donc daal euh, loolu yëpp daal mi ngi noonu daal mi ngi noon yokk sa bopp di si bon xaalis bi moom fii fii ñu demal seen bopp bëri na. ultra moom laa la wax. boo am nañ benn groupe boo xamante ne ultra 221. boo yu bëri bëri bëri bëri bëri da nga doon gis ñun koo xam ne day bëgg a dem sax maanaam euh, heure xaalis heure joxe xaalis lourdement jotagul nga gis kenn ci gars yi fayal la ba boo amee fay ko maanaam solidarité boobu noonu ñun moom lañ moom lañ doon demee. Euh, Cyril boole na ma ak benn gaan boo xam ne euh, Abdou bi muy bi muy bi may fayal logement man boobu fekk na yoragu ma woon xaalis mu mu mu fayal ma ma dem ba am am tuuti fay ko loolu noonu. donc football noonu la football football pour man ji nga ñun on est des fans inconditionnels du football. maanaam dañoo ñam compétition nation euh, euh, continentale ak intercontinentale pour man euh, bu ñu demee li ministère yóbbu ak volontaires yi nga xam ne demal nañ seen bopp bu ñu demee foofu vingt jours la ñu sol dañu war a ànd ñun ñëpp supporter l'équipe nationale du Sénégal xam ne Sénégal bu gañee ñëpp la gañeel oui. Euh, noo gisee turul la gars yi la réseaux sociaux yi. non non man man man ñi may ñi may turale man samay xarit lañ man xam nit ñi man nit ñi dañ may dañ man nit ñi il euh, euh, il trouve le paradis en mois quoi maanaam dañ may turale damay naan nit ñi il faut ma leen bàyyi ñu ñu may tooñ si ça leur fait plaisir quoi su ma gisee ne tey jii moo tax man damay accepter à ce ñuy jël samay photo di ci foo di wax lu nekk et cetera mais man loolu mooy dama nga jël avec philosophie xam ne nit ñi voilà relation boobu laa am ñoom muy relation bu bu bu rafet rek ah voilà quoi ça me def ma dara ah. voilà soo xam Mame Balla euh, yaa nga jógee léegi France bi nga jógee France yi yàggul da fa amoon benn euh, benn festival. Mm-hmm. voilà amoon France. non Fra samay spectacle laa spectacle bu rëy. spectacle de Boune à Paris. nga bi. waaw loolu wax nañ ko. def guichet fermé. def guichet fermé euh, Vieux de Belleville. bi euh, euh, noo ñu mën a wax waaw spectacle bi moom def nañ ko commencé nañ ko jeexal ko ànd ceeg ñi ma ci war a àndal. sama communauté bi nekk France yaakaar naa ne jàpp nañ ci bu baax xam nga artiste mën nga toog fii boo feesalee fii benn yoon ñaari yoon. il va falloir de nouveaux challenges challenge yooyu lañ demoon seeti lañ demoon uti en France wane ne kat ñun on est prêt à l'international moo tax on a écrit notre première partie en français deuxième partie bi ñu def ko en wolof et yaakaar naa ne ça a été une réussite totale gars yi ils ont aimé ñëw nañ kontaan nañ bañ nañ ko ba ba ñu paree semaine prochaine dañu bëggoon yóbbu Suisse Genève maanaam samedi bi ci topp mais man maa bañ man maa leen ndam day fanaan ñëw naa Paris toj ko du ma jëm di jëm Genève sans communication sans dara après man lu may def rek dama koy waajal bu baax. Euh, voilà soo xoolee euh, si spectacle bi ñu bëri dañoo wax Mame Balla bi dafa fuy moom moom moom ku ko bàyyi mën na mën na fee dem ba France <laughs> comme comme genre nims yi sama genre yi naan Mame Balla est-ce que mën na feesal France bi da nga kaa feesal. waaw secret bi la bi ñun ci réseau yi lañ nekk boo nekkee ci réseau yi ci da ngay ouvert positif ak négatif man am na benn jour j'ai j'ai fait une vidéo Euh, benn gars ñëw mais kii ma comment il trouve toute cette énergie là à faire di lu ñàkk fay la lii quoi bi ma koy wax euh, commentaire boobu noonu man am nañ commentaire yoo xam ne ça ne fait pas mal de mais dama koy jël prend acte des fois nit commentaire def ma benn commentaire ba maanaam ci mën naa di def TikTok boo xam ne damay fecc wala ma ngeem mu def dara ma gis ne nit ki daf ma jàppee nit ku ñàkk fay la mais kooku dama koy capture denc ko sama note parce que wax boobu noonu ma war a motiver moo tax moo tax nit ñu bëri day waaye day def commentaire ma capture ko denc ko sama not xam ne lii non boo defee maanaam nit maanaam boo defee lu man lu positif je ne du ma ko dama ko jàpp man lu négatif laay jël di ci jàng xam ne kii kat jàpp na ne man waru ma waru ma mën a egg fii il faut ma fayet ba àgg foofu noonu donc loolu tax ñu def spectacle bi euh, ñi lim bi yow boo jàppoo ne waruñu koon woon feesal feesal nañ ko les photos sont là le promoteur il est la les ñi fa dekkoon ñi nii di ma seede donc te c'était le même jour que Sénégal doon football ak Bolivie à Orléans Orléans c'est à une heure de Paris donc rêve yooyu noonu man li may wax chaque jour mën nga ma tere lu ne mais personne ne va m'empêcher de rêver damay rêver Sénégal Euh, gënuma fi siiw kenn am na ñi niñ ma amee ñu ma ñi xam am na ñoo xamante ne xamuñu ma donc damay continuer sama liggéey pour que avoir plus de de champ de de de travail gën a yaatal liggéey bi pour que mu gën a jëm ci kanam quoi. voilà Mamba soo xool maa ngi gis benn interview mais da ngaa doon xas média nga ne da ngaa def gis ferme feesal ko mais benn média sénégalais euh, waxu si. mais effectivement. Sénégal sax nañ ko. effectivement Sénégal bind nañ ci article Sénégal bind nañ benn article te peut article bi sax yow yaa ko bindee. mais li may wax chaque jour mooy fi ñu nit defee lu baax maanaam fi nit defee lu bon ni ñuy précipité yow euh, relayer ko bu nit defee exploit nañ précipité woon noonu avec la même énergie bind ko man maanaam sama événement si ce pas ñi may suivre du siiw si ce n'était pas ñu may suivre du fees si ce n'était pas ñu may suivre àdduna duñ ko xam donc quand bu ñu defee benn affaire médias yi nekk fii am nañ des des parties culturelles nañuy dugal suñu partie culturelle foofu noonu di wax li ñuy def parce que ce n'était pas évident euh, que l'on de la banlieue partir à Paris am ñoo xamante ne ñoom pour ñoom suñuy challenge moo nekkoon est-ce que dinañ may visa sax bañ naan dañuy dem Paris yàlla def ñu may ñu visa ñu dem feesal Paris bu ñu paree def loolu noonu waa Africa 24 bind ci mais ñoom nit ñi nañu retourné site yi laay de site yi ak média bi nañu retourné niñ koy defee ñu bind ci wax na kat diw def na lii. bu fiyasko woon bu nekkoon jafaaka liive nim fi yaa koy njëkk a bind. Sénégal moo koy njëkk a tiitre euh, nu mu tudd euh, kii bi kawteef da koy njëkk a tiitre ne xool leen image yu Mambala Mbow yi mu jógee bu moo fa feet ñetti nit ñoo fa nekk ñeneen ñëpp bind ko donc nag comme que yàlla def na loolu xéwal mais bu fekkee jaaratoon dañ fa a jaar bind ko. waaw xam yaa ngi partenaire yaa ngi ñëw yaa ngi sa voyage yi. Mambal. nim fi ah. man nee naa leen dawkatu dépense la man Dakar dem dikk laa nekkoon di liggéey di am kaaru matin kaaru suba laa amoon kaaru suba maanaam personnel bi mi ngi war a jaar sa buntu kër quatre heures wala quatre la personnel bi war a jaar sa buntu kër donc tu dois te réveiller réveiller à quatre heures vingt wala quatre heures bu sang-sang bu gaaw génn man Dakar dem dikk laa nekkoon nekk fa agent am fa CDI amoon fa CDI jékki-jékki tey euh, ay marque wóoluma ku mel ni Orange Sonatel. du ay caaxaan waaw. waaw. parce que dama jékki-jékki takk jabar maanaam dama leen jékki-jékki takkam jabar dof rek takku jabar bi ma dofee takk jabar xam ne ku am jabar doo taloo nekk fi naan da ngay jàng. wala dina la nekk fii naan da naan ataaya noonu laa bàyyi yi ma def yëpp daw ubbi sama multi service nekk ci ñu jël ma ci benn multi service ma fay liggéey ma Mamadou Tine Tine bu nekk buun ñëpp xam nañ ko ma fay liggéey ba ma jógee ci loolu noonu ma déposé woon Dakar dem dikk benn jour rek déposé woon na sax fàtte ko benn jour benn femme bu nekk Dakar dem dikk woo ma awa du ma ko fàtte mukk awa bi ma woowee ne ma si Dakar dem dikk votre dépôt dama sax tiit tellement dafa réyoon ci man dafa réy ci man ma dem ñu defal ma formation bi ma defalee formation après ñu recruté ma defal ñu contrat une année boobu avant une année yi Moussa Diop euh, le ancien DG moom moo ko renouvelé te ku euh, ku baax la Moussa Diop maa ngi koy sant bu baax ci opportunité boobu mu ma joxoon ndax opportunité boobu bi ñu ma nga jox ça a été euh, métti woon na trop mu recruté ñu donte ba muy recruté xaw ma comme noonu la ñuy recruté mais maanaam man lu lu ma waay defal rek même boo ko xamul sax dama lay gërëm. donc ñu nekk foofu laa nekk Dakar Dem Dikk nekk naa fa trois ans en tant que receveur sur la ligne 15 dem naa ba ñëpp xamul ma foofu noonu mais bi ma demee ba benn moment ni ma nekkoon ci réseau yi def humour jekki-jekki ay entreprise yu mag wóolu ma ñu mel ne Orange Sonatel euh, woo ma def ma ambassadeur ma xam ne tey jii kat ah euh, à vouloir tout gagner tu risques de tout perdre ma nekk foofu gérer ah. mais man Ba la mu nga fay de. man nee naa la dawkatu dépasse la man je fais pas de la comédie pour fiw man je de la comédie pour vivre je yaa may est-ce que je fais pas de la comédie pour avoir une notoriété. voilà mais mais notoriété boobu mooy indi mooy indi mooy indi même euh, kii bi mais loolu mooy dil bi man damay daw dépend boo ma woowee ci série boo ma woowee ji firi boo ma woowee ji firi damay waxal ak yow xool li ma arrangé xam ne est-ce que lii mën na jënd sama woyofal est-ce que lii mën na fay sama location est lii mën na fay sama jàngu doom su ma arrangé wu eh, ah, eh, maro li nga ma gis ak even mais des fois nit woo ma ji firi la ma wax man arrangé wu ma ma ne la garaawul man jouer pour jouer je joue pas pour jouer je joue pour avoir de l'argent je fais de la comédie je fais mon spectacle avant de la pour avant lu muy dundalee yi mu ngi jeex mais bon Mame Balla comme euh, dernière question gars yi nee nañu léegi Sénégal soo bëggee nekk borom xaas foog nga nekk comédien. Euh, euh, léegi politicien ak comédien kan moom xaalis. Ah? kon gars boo bëggee am xaalis dama nekk politicien. <laughs> comédien bi tamit ah tamit nga fay. macha allah. lii ah. lii <laughs> waaw man dama sama plaque lii ah. dama ko kondaane ah. <laughs> condamné condamné condamné ba yàlla def euh, ma am ko mais xam nga lii du Papa Ndiaye xam nga la moyen de transport la rek li ma daan def ci taxi moo gën a metti fuuf hmm. lii hmm. xam nga lu ba ma daan def taxi moo gën a métti foofu lii moyen de transport la ni ko terre bi nekkee ni ko scooter nekkee ni ko tànk nekkee ndànk sax moyen de transport la donc yiidu du dara ce sont des choses mondaines dañuy dee bàyyi ko fi amul solo quoi